benn waay la boo xam France la nekk am fa soxnaam Sénégal la njëkk am soxna fii bàyyi fi soxna si am ak moom ay doom bàyyi fi tukki France dem am fa nja am fa soxna am fa doom maanaam takk fa ñaareel am fa moom doom dellu si ci réew mi benn tabaski mu jël soxna si nekk fële ànd ak njaboot gi Sénégal ngir tabaski ci comme ci village yi lañ dëkk village ay kër yu mag la fa la dem ak njaboot yëpp ñu nekk fee di tabaski biñ tabaskee ba tàkkusaan ci ngoon moom ñaareel bi mu jóg ne day sangu ji aaw bi ne ko maa lay maa lay tànqal ndox nga sangu ñëpp kontaan ne ah aaw buy tànqal ñaareelam ndox mu sangu ndekete moom daa bëgg a profité ci ndoxum sangu nekete mom demoon na ci njabar kat bim xame ne wujjëm bi day tobas kesse rek préparé na ay cumbukaayam mom ak ay nitam tok diko xaar ndeke dem na ci benn njabarkat ca tund woowu njabarkat bi jox ko sunguf ci ben ni laxasu pour ne boko sotte ko rek boko sotte ci ndox bi muy sangoo su ko jeukeram do tul bëgg ci mom dara nakoy fasé mu def mu jël siwo bi ne wujj bi maa lay tànkal ndox ma sang toogal wujj bi toog mun a cëfit ndox mi siwo bi dem sangu ji dem yób root yóbbu ca duus ba bi mu duggee ci duus bi xool góos xool droit gisul kenn mu tekki mbuus mi jël sunguf sëpp ne ko ci pëy yëngal moom tuuti lañ ko waxoon rek waaye xër naa xër ba def ci sunguf sëpp kële daal di ñëw dugg ci duus bi tàmbalee sotteeku xam nga jigéen ñi bu ñuy sangu seen bop yi lañu mujjé raxas yaram bi lañu ko soti ndox ni tambalé rag mu jël ndox mi soti tambalé rag bala mo sangu bay pare yaram bi soppé ko tambalé changé di def comme genre bo mut di tek ay waasintew mu bombu njàmp li bombu mbir mi di gëna mu tok ci duus bi am kersay genn yàgg na ci dus bi yàggaay boo xam ne jëkkëram moo ko fa mujjee fekk foncé bunt bi biñ gisee yaram bi mel nii ñu jaaxle ci la aaw bi tiit daal di wax ne du lii laa santoon sëriñ bi sëriñ bi ñu ne ko kon yow kaay yàlla koy jàpp tëj ko ci néeg dem di lijjanti ba yàlla tegal ko ñu doog a ci moom. bu ñu jëlee ndaw si wëndaaloog moom ci tundu woowu fu xam fat kat ñu dem fa affaire yi ko ñu dellu si ci mom ne ko kan mo la défaral li mu joxé turu ki ko def ñu yanu ko yóbbu ci ka ko def koku na leen man nañ ko fat waaye liñ ko mëna fajé moy mooy domam faw ñu dagg baaraamu sànqale ñu doom ji békk deret bi sotti ko yaayam bu ko defee yaram bi dama soppeeku lii dana deñ ñooñu daal di bañ ñu duñ ko def situation bi day gën a di gën a avancer affaire yi tàmbalee génn ay picc di topp di génn dëtt mbir mi di dem di dem di dem di dem ba xet tàmbalee di ci am loolu dem dem ba ñu isolé ndaw si ndax kenn mënatu la nekkam mu isolé ko complètement ci benn néeg ci biir kër gi isolé ko lekkam di ko fekk foofu ndékkim di ko fekk léppam añam reeram di ko fekk ci jigéen di jógoon France ñu tabaski si mbër yi metti ci moom ba mu ne ba muy sàkku ngir ñu rey ko ba muy sàkk moom ndaw si ngir ñu rey ko nan ma rey fetal leen ma ma dee yooyu lay doon wax mbir mi japp ko japp ko jeuker ji attanatul situation bi xel mi tàmbalee dem mu am lu ñu perturbation mentale parce que bo toogee ñetti fan yu tegloo nelawo rek perturbation mentale c'est très normal mu dugg la mais yalla dimbali nako ko la ko ay fajkat alhamdullah yu ko génne ci situation bo mo nee dox njabotam delu France donc lii lepp ay jafeñ-jafeñ la yoo xamante ne ay jigéen ñoo koy defante seen biir bokk jëkkër wërsëg la mais du mujj jamono njabar lu bon la lu yées la seeti njabarkat àndul ak lu nekk jullit yonent bi nee na képp ku sukk ci kanamub seetkat boroomi pettaw pas nii wax yonent bi nee boo ko gëmee nee na nekk jullit loolu ay texte yu wér la te njabar bari na lool ci société bi njabarante gi ne xus tamit te yéen aussi jigéen ñi am ngeen ci part de responsabilité te lépp mbiri àdduna la